di julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu waa Sénégal ñuy seetaan si biir réew mi fii si Sénégal ak biti réew di ñaan yàlla sunu kaddu yàlla na leen fekk si jàmm ak tawféex di leen baalu àq si julli guñ jugee di leen baalu àq di ñaan yàlla saa borom boo leen jéggal mhm. nangu ñu sunu jàmm yàlla te jéggal ñu sunu rëcc ci barke alxuraan eh, amiin yaa rabbi yàlla bisimilah gannaaw loolu nag ñu fas yéene dugg ci waxtaan bi waxtaan bi Cheikh Aliou dañ koy xaaj ci ñaari pàcc bi ci njëkk ñu waxtaan li nga xamante ne moom mooy wàllum xam deuxième partie bi ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy actualité di xew-xewu jamono ak tolluwaayu réew mi léegi nag bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy première partie bi dañ koy ubbee ci li nga xamante ne moom mooy wàllum seet Cheikh lan nga ñu mën a wax ci wàllum seet listixaar ak yooyu. waaw alhamdulilah ñu ngi santaat yàlla bu baax xam nga daay man dama koy wax te adduna bi ñuy siifur sëriñ Aliou Touré borom solution si site bi mag bi muy 221. xam nañ ne yàgg naa wax si seet si ay qualité uh-huh. seet ala kulli alin wax naa ne mboolem fànn yi nga xamante ne fànn yi ñuy seetee. Mhm. yàlla def na ma géeju si. dama mhm. wax la mbokk mi du nekkee ne dëkk ngay dugg buntum dëkk bi mooy seet. mooy seet. seet sëriñ bu ko mënut. Mhm. wala nga géeju si wala nga maîtriser ko. pour nga def asraar pour nga ñaan dina jafe. man nag sëriñ Aliou Touré mën naa seet seet yëpp yi nga xamante ne gars yi dañ koy seete mën naa seet si tomb mooy ran mu mhm. bind sa tur ak tur yaay wàcce ko si ay chiffres mën naa seet si ndox mhm. mën naa seet si xottu gerte mën ngaa tàllal sa loxo bii ma seetal la nii nii rek nii te seet man yàlla damaa dimbale si seet mhm. du ko bàkkoo may sëriñ boo xamante ne man maay jël avion wala ma jël avion dem si dëkk ak dëkk toog ak ak kilifa jël taal sama oto dem réew ak réew réew yu jege yi gàmmi war Murtani pour lan seet toog ak kilifa seetal ko rek kese kese seet rek taala sama oto ñibbi si wala ma jël avion ñibbi Sénégal. Hmm? am na kilifa yoo xamante ne bëgguñu sax ku leen ñaan ñoom nan leen seetaare ñu xam seen ëllëg lan la. génne seen sarax ndax man si biir seet. Mhm. mën naa la génne loo sa sarax sa lépp baax. saa ma jox la sa sarax saa ma jox la biteel nga sangu wala mu bind alxuraan jox la nga sangu. Mhm. moo tax seet yàlla dama dama see géeju. xam ko lool dama wax ne du nekkoon ne bàkku dafa am bàkku uh-huh. te bàkku l'islam nanguwu ko uh-huh. dinaa teg nënd ne si Sénégal wala ñuy génn si internet uh-huh. ku mel ni man seet amut mais boobaa nga gis gaa yu daaneel sa sa ndënd sama ndënd waaw ku ko seppi daanu dama ne la man nekkuma xale doomi mag laa damaa jàng xam-xam jàng géeju ko mën a seet lool am vision boo xam ne kenn amu ko man lu ma la wax takkal téere man may topp sa tabia sa biddiw mhm. man biddiw laay topp sa biddiw du ma ne la fay na fay na du ne la tàkk na day tàkk mhm. kenn mënu si dara ku yàlla <laughs> moo tax seet dama see géew xam ko lool te mën ko alhamdulilah ne maa sant yàlla bu baax léegi xalwa bi nag gars dañ naan seet ñi naan xalwa nañ di ko jaawale duñ benn mhm. seet dangay seet mbiru nit ki xalwa nag nit ki day am aajo uh-huh. ñëw ne la sëriñ bi dama am aajo sàngam bëgg mu faju nan laa def ba mu faju nga ne ko waaw la na pour ma faju il faut que mu dugg xalwa da ngay dugal nit xalwa ak a bëri hmm? ñëwal ma ci loolu xalwa ñu ngi koy duggee juróom-ñaari fan ñetti fan fukki fan ak ñaar ña ñeen fukki fan ak juróom quarante cinq jours wala am na lu ko ëpp am na sax lu ko ëpp waaye ku mel ni man nag Serigne Aliou Touré gannaaw bi mal bi nga amee sa problème sa société bëgg a daanu nga bëgg a falu nga bëgg sa koom-koom yokku nga bëgg nga boole sa njaboot ñu doon benn nga bëgg sa wër wërsëg yokku nga nekk Europe wala fenn mbiri jafe la tëla gannaaw bi ma la dugalee xalwa ñetti fan yi wala juróom-ñaari yi wala fukki fan ñaar wala quarante cinq jours yi du may génn si xalwa bi nga woo ma dem sa aaj yi faju na te danga koy garanti billaahi laa wax du ma dugg dugalee xalwa pare fukki at ak juróom laa wax man dama lay garanti du la neexee bul kenn dugg la ci xalwa laa wax sa mbiri lay garanti tee ko ni teg ko sa loxo nga dem <laughs> te loolu si tur yàlla laa koy liggéey si si moo tax sama xalwa nag yamba da ko dugglu hmm? xam nga mis misaal rek dama lay wax benn mbir waaw nga am këru trois cent millions hmm. am oto vingt cinq millions hmm. nit a duggaloo la xalwa ne la jox ma trois millions nga ne ko yoroma ko la ndax dégg nga lu mu la wax am oto trois am oto vingt cinq million am kër trois cent million yow sa jëmm ji yow sa jëmm ji sa jëmm ji. Mhm. nay nga see def 3 millions pour lu la aar ma ne xaru la. yaa ngi romb si Ndakaaru borom immeuble yu bëri tay nga ne la ana ñu ne ñu ne dee na. Mhm. ana borom place bi dee na ana borom société bi dee na. cat mhm. baaxut. te xalwa day dindi yooyu yëpp. raxas sa yaram ba mu set sa wërsëg bi yokku nga am kaaraange na. <laughs> aca borom solution defe naa ni loolu moom leer na nañ képp doon werante ci li nga xamante ne moom mooy wàllum seet wala xalwatu defe naa ni Saliou leeral na ko moom leer nañ borom solution ce que am nga solution ci wàllum rab. mbokk mi dama lay wax benn affaire rab aw ma taalibi nag rab taalibi jinne comme ni ko gars yi waxee. Mhm. aw ma benn jinne boo xamante ne dama laa conditionné. kon noo koy faje man alxuraan wax war a xadd karab naa. bani aadama yàlla neen lépp lu ma bind doomu aadama laa ci gënal. may ko xam-xam boo xam ne mayu ma ko kenn ku yàlla dox doomu aadama xam-xamam amul benn luy dox si àdduna lu bokkut ak moom ku xam am xam-xam bu tol noonu man rab du nekkee ne jigéen la rab dalaa jàpp ba mënoo am jëkkër doo ñëwee ma sangal la ba nga set jox la fuddan bi nga am borom kër du nekkee rab dalaa jàpp mënoo am jabar doo ñëwee ma sang la ba nga set jox la téere bi rab bi dañ nga am jabar du nekkee rab dalaa jàpp na di la daaneel ngay falax falaxi suuf loo dugg mu yàqu place boo laal mu yàqu kër gi rab bi nekk fi xam ndax kër daa wax la benn affaire kër yi ñuy dëkk dafa yor dafa am rab bu ñu yàggul fii si almadi am na kër goo xamante ne chaque jour day tàkk day tàkk place rab la hmm. dañoo dem foofu dindi rab bi dàq ko mu dem yaa ngi taw ak kër ba pare chaque jour nit ñaa ngi feebar di dee chaque jour nit ñaa ngi feebar chaque jour nit da nga am problème place rab la dañuy dàq rab bi su nekkee rab jàpp na la nag ba dof loola ma ne la yeew ko indil ma ko man mhm. doo yegg see man la yeewi ko buñ ko yeewee mbaa du dóore kan du ma yegg du yegg see lay def ndax li ma àndal moo ëpp doole moom ma jaxul wax li may wax mu ne nemm ma faj ko sans caméra nag sans caméra man utuma ay daanukat daam ñuy faj waa dama ne caméra utuma ay daanukat deet deet Cheikh Aliou foofu moom waa dama ne la man Serigne Aliou borom solution. Mhm. utuma ay daanukat. daam ñuy ut ay daanukat. damaa damaa wax daal man utuma ay daanukat. ah déet man ñi may faj ay nit ñoo xam dañuy feebar ñëw. ma dugal leen si sama ne kër gi néeg bi mhm. fii ngeen ma fekk. faj leen ñu doxe seen soxla sans caméra. Mhm. te dañuy jóge réew ak réew. dëkk par dëkk. raison par raison ñëw di faju si rab. te ku ñibbi di nga wér. waaye jël nit ba pare muy faju nga teg mi koro muy wax. nga fay nit mu naan diw nangam diw nangam c'est faux. da jàpp ne loolu amul amut. kon loolu ay tappale la. tappale képp la laax. ku ku ku bëgg ku bëgg ku bëgg. Hmm. mën naa indi ko am rab nga toog ma toog ba xam doo ko waxee dina wax. ñoom ñëpp dañoo war a faju yi ndax ñoom ñëpp feebar nañ. ban feebar leen da rab doy woote loo xamante ne xamoo ko dalay songu. mag ñi sax nee nañ doy woote ma xaamu boo bu nekkul si yow mbugal bi dalay songu bànneex bi daw la gaa yu bëri di faj rab tey ñu ngi feebar. guddi jotee duñ nelaw ndax ay rab. te looloo ko waral te looloo ko waral ut ay daanu kat ñu lay daanul di lay daanul di lay daan di du yuuxu du yuuxu du yuuxu xamuñu tous mënuñu faj faj rab doo koy def doo koy waraa nit doo koy def kenn du la film faj rab doo koy def si sekkare lay doon nga faj nit ki ba mu wér muy doon kilifa wala muy doon am du état wala mu doon ku nekk ndax rab ñëpp lay dugg nga faj mu dem doxi soxlaam mu nekk sa kóllëre di jokkoo ak yow loolu mooy dëgg mbokk yi mu ngi noonu ñoo ko déggandoo defe naa ne li ngay wax nii garaaw na de révélation yu yéeme la. wax dëgg la wax dëgg ak révélation du wax dëgg mooy lan wax xew nañ bàyyi ñi fay di leen daanu loo. Mhm. te nit ñi yaakaar ñëw ñun ñu faj leen. Mhm. nit ki nga ngay war def caméra nit ki ñëw pare nga naan ko maa waxoon dama lay faj si trois jours léegi da ngay dem ko jox garab di ko jox garab di mhm. léegi teel ma bu baax ñu ñëwaat ci li nga xamante ne nan moom mooy wàllum ci farlu côté boobu sax la ñuy des ba tey dañuy ñëw ci li nga xamante ne yi ñu ngi faral di wax nitu guddi maanaam dëmm. mbokk mi waaw. koo weddi. Mhm. ku weddi ne nitu guddi am na. Uh-huh. dalaa jàpput mu jàpp sa mbokk. nit ñëw fii barki démb. Uh-huh. duy saw day génn lu xonk cur. du nelaw guddi. Uh-huh. tani di ko di ko dàqe par guddi. muy gis ay rab yoo xamante ay mala lañ. nitu guddee ko topp timis la koy la koy topp. nga feebar sa yaram bi di jeex nitu guddee kay def. Hmm? wànq si tool. Hmm. day lekk gerte gi mu ta gerte gi nekk nële. Hmm. wànq bi nekk nii di ko muucu ba mu jeex ba doo ko xoolee poussière nga fay gis ak pënn. loolu mooy nitu guddi mooy koy def. ma wax la affaire am na ñoo xam ne si yenn dëkk sax dañuy lebale. lebale lan xam lebale xaalis lañ ko yaakaaroon. wala marchandise wala marchandise. waaye sa doom ji màgg na lebal ma ko. nga def ko nag. ma def ko noonu nitu guddi def. ma demee ba si kanam ba sa doom màgg ma nga fay ma. nit ñëw na fii di jooy ne sama yaay ma lebale man. loolu nag du amee. ku mën a doon laax. Mhm. dëkk bu mën a doon. lii laa koy fajee man gannaaw moo la joxe téere bi. lii lan la cuuraay. cuuraay la ay bant la. ak lu muy àndal. maa ko liggéey maa ko dott. foo ko suur. Mhm. képp kuy nit guddi. képp kuy nit ku bon. képp kuy loo xam ne dalay lor day daw. foo ko suur laax timis du ñu jant bi di soow. Mhm. suur ko rek si sa kër gi. fu mu ku xëy koo xamante ne dañ ne kii nit ku ban la wala nit ku nitu guddi la day daw. day daw day di nit seytaane day di ni ngelaw. Mhm. ndax nitu guddi dina la la ko soo ngelaw. am na ñu bëri ngi dem hôpital ñu naan leen dañoo am car car nu mu tuddati. cardiaque feebaru rees. rein ak yooyu rein fekk na du rein du loolu la ko laxasu mooy nit guddee ko laxas. Hmm? waaw waaw. kon loolu am na ci. day laxasoo benn feebar. kañ lay taqali ko yow ma bis boo dee. man nag doo ñëwee dama lay faj ba nga wér dàq li nga xam te ne muy nit guddi guddi gi jox la saafara bi nga sangoo ko jox la téere bi nga nga takk ko jox la cuuraay bi nga suuroo ko mm-hmm. moom du la jegee daw yaa ko doon daw mm-hmm. ah mujj mooy mujj di daw mooy mujj di la wan ginnaaw di daw moo yaa ko doon daw naa nit di guddi léegi moom moom mooy daw ndax li nga li nga suuroo wala li nga takk la ñemewut cey borom solution muy noonu defe naa ni képp koo xam ne soxla nga ko rek xam nga fi ngay aw numéro bi mu ngi affiché wu noonu ci suufu écran bi boo ko ci woowee rek incha allah ko ci jot léegi nag borom solution dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy moodu moodu yi moodu moodu yi seen problème xam nga ko ndax defe naa ni moom ñàkkul ne fi mu toll nii amuñu amuñ na ñu lay ñu lay woo di jóg feebar yëpp wala seen jàngoro yëpp nekkul dara lu dul bëgg kayit mënuñu ko am Cheikh mhm. maa ngi nuyu sama mbokk yi faatu faatu yi ak moodu moodu yi uh-huh. nga xamante ne ñu ngi biti réew di ut ay at wala ak i weer ñoo am lu ñu ñëwee Sénégal mënuñoo am këyit mënuñoo am séjour mënuñoo am sax liggéey si société te lu gën a métti laa lay wax am na ñoo xamante ne dañ leen di lebal al këyit di leen di leen fayeeku looyee la këyit. looy këyit nit Sénégal bu am këyit looyee la këyit ngay dem ngay dem di ko liggéeyee doo liggéeyee 1 million mu jël 500000 nga jël 500000. ak a métti maa ko dégg maa ko gis. du nekkee loolu am na yaa ngi biti réew amoo këyit dama ne man Serigne Aliou Touré du ma la téyelee course liggéeyal lu ma la liggéeyal ñaar fukki fan ak benn far allah këyit boo dugal mu génn te duy génn mbégte lay àndal du nekkee amoo liggéey ma ñaan ba nga am liggéey laa wax du nekkee da nga am problème dëkk ma ñaan ba nga génn si problème yi du nekkee sa jabar sax nekk di la yeb di ba nga ba ngee nag moodu yaa ngi yóbbu jigéen Europe uh-huh. ba nga ko yóbbee ba mu yegg la la wan ginnaaw waaw na ci yóbbu la si yoon ndax sa foofu jigéen a fa ëpp doole uh-huh. dama ne maa koy dóor dóor ko si baatin ba mu ne nem mu toog seeg yow dootul waxati. par force par force lu nekkee góor la ma def ko ko. moo du Modou Modou am jaam am liggéey yaa may dégg am këyit am séjour li liggéey seen mbir yi mën a dox ñuy mën a ñibbi man dama ne man sëñ Aliou Touré. Mhm. xam nga ne yow bañ commencé wax ba tey ñaata at. bari na kan moolu ma sa woo si Modou Modou ne sëñ Aliou Touré lekk na sama ñaar téeméer. Mhm. te ñaareelu lu gën a garaaw. te nit ñi di ko def man du du ma sax soppeeku xanaa ba beneen numéro yokku si te bu beneen numéro du yokk sa boobu laa gën a jox foofu rek mooy 053 bi 773 ndax mooy sama whatsapp. Mhm. moo tax jokkoo man man man sëñ Aliou Touré jokkoo man si Modou Modou moo gën ndax ndimbal gi may def jëm ko si ñoom. Mhm. ñu nekk fi bëgg dem nat ñu nekk fi dem nañu indi seen passeport yi xam nga émission bi ngeen def ma jur passeport yi. Mhm. balaa ngeen ñëwaat fekk émission bi may joxe passeport yëpp. te képp ku ma jox passeport am yàlla def na am na visa. Hmm? billaay wallaay taalaay. lan mooy secret bi. xam xam fi may jaar ba sama dossier man nag ambassadeur bu ko jël si kaw nga koy teg da nga koy da nga koy tamponné ndax li jiital si ambassadeur moo tax moo tax balaa ngaa doon naan la ban ambassade nga bëgg a dem nga ne ambassade France la wala Amérique wala Espagne wala nangam ma jiitu fa samay mbir mbiru baatin nag du mbiru rab de ay rab yi jinne yi de. Hmm. baatin tàggat. tàggat dafa am tàggat ambassade bi. Mhm. ba turu nangam du dugg rek mu koy tàmbale. loolu xam-xam la baatin la. <laughs> Cheikh Aliou solution. léegi nag dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy bagages yi. bagages yi bi ci jiitu moom bu am na boo xam ne moom dañ ko fi waxtaanee. ndomb solution bi. waaw xam nga. nomba yii. mooy nomba la solution. am na boo xamante ne pareegul ndax seen borom yi dañ kaa war a dañ kaa jël seegut ba may wëldu mag bi juróom-ñaari gaw lay am. Mhm. ñu ngi ko tuddee wëttu mag ak gone day wëttu wëttu ñu olofal ko tuddee ko mag. Mhm. waaye tudd noonu wëldu mag gone la tudd day wëttu mag day wëttu gone. doo ko mhm. taxee kaaraange 100 pour cent ngay am. ma tuddee ko kaaraange plus gannaaw bi nga amee parent kaaraange pare am ubbeeku. dafa rax ubbeeku. waaw lu amul ubbeeku baaxut. bunt bii du ubbeeku woon njëriñam du bëri ndax doo fi dugg mhm. gannaaw bu ñu ko defaree pare def ko kaaraange ba dafa am bunt bu muy jaar ubbeeku nga mën a ubbeeku mën faa dugg toog njëriñam mën am moo tax doo takkee dara pare da nga koy da war a ànd ak ubbeeku mhm. yii na ndomba yii mooy ndomba yi nga xam mooy ndomba la solution police yi ñoo ko ëpp lu ñu koy takk am de tenn yi ñi nga xamante ne mooy gouverneur yi moo moodu moodu yi waa Sénégal ndomba yi ñaar fukki junni ak ñeent lay jar ak ñaar yaa ko cent cent dix mille francs benn bu ci nekk benn bu nekk. nu mooy lan mooy njariñam. nag mbay kaaraange moo si jiitu. Uh-huh. ndax lu amul kaaraange baaxul bayre balaa nga def da ngay am kaaraange. du ñëpp waxee ne diw diw diw dina amoo kaaraange dee dee sa kanam. dee nga waaw. da ngay am kaaraange avant daray toxal xew. mooy uh-huh. kaaraange gi benn bi mu ubbi la. aar la ba lépp loo xamante ne day ñëw si yow muy jàmm muy te safaan du la fi képp kuy dox si suuf laa suuf. di jaar si bunt du la liggéeyee yuuxu. Hmm. loolu rek doyoon na si waaye yamul foofu. lu ci yokk wërsëg bu ba xam ne day ñëw wërsëg takk ba sa ndigg fees te wërsëg amoo ko amul njëriñ dafa am benn waaye bu fi mos a ñëw fii gane si ma day takk ba fii duy ñibbi dina ñaan paas ma ne ko takk bi wàññi ko <laughs> takk ba mu noonu nooy te wërsëg boo paas boo demee amoo ko amul njëriñ amul njëriñ mm-hmm. doo takkee daal day ànd ak ak wërsëg ak ubbeeku nomba yi nag mooy njëriñ kapp la gannaaw bi ñu jógee ci ndombo yi dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy cangat yi cangat yi nag bàyyi woon naa fi cangatu ñetti njaq yi xaw ma na ndax am na yoo xam déet nag waaye ñetti njaq yi moom bëgg naa nga ñëwal ma ci mbokku téléspectateur yi xam naa ni ñii la yàgg yàgg topp ñoom yàgg nañoo dégg ñetti njaq yooyu noonu ñu daan ko wax urgence ñetti njaq yi njëriñ gee ëpp wax ji njëriñ gee ëpp ñetti njaq yi ñàkk faa sang wóoru ñetti leget la leget bu nekk dafa am lu muy lu muy lu muy jëriñ déglu ma wax la ñëwal première leget bi mhm. lépp liggéey bu ñu la def mu nekk sa yaram bi muy kottu muy liggéey muy nañ la suul si armeel nañ la suul si guy daaj la si guy lépp lu ñu la def doo ñëwee foofu benn sangat bi da koy dindi ba mu set wecc fi nga taxaw fi nga taxaw amul dem ba suba si waxtu bi nga sangoo loolu day buddeeku dañ ba set wecc day toj toj liggéey dafa am toj ñaareel bi ma aar la nag ba dara du ñëwati si yow ñetteel bi ma ubbi la Mhm. ba nga mën a ñam dara waaye lu si yokkuwaat nag laa lay wax ne la beneen sangat bi ñaari yokkuwaat na si bi nga xamante ne maa ngi ne si si si mbott mu dee mbott mu dee mel ak suuf si nga xamante ne moom la maire di saafee gerte ma jël mbott mu dee bi def ko si ak aay bi ma koy booleel jox la ko mën ngaa sangoo sa kër du la neexee doo ko sangoo pare desal tuuti si butéel bi denc ku la liggéeyam yaramam new yi ku la liggéey yaramam new yi xam nga loolu lan koy dindi du yaramam mu ñëw nag d'accord ne moo la liggéey nga tànq ci saafara bi tànq kooku mu dem sangoo ko neew bi dañ. kon la nga cay desal looloo ko waral. loolu moo tax man la nga koy desal. Hmm. ñett beneen bi nga xamante ne moo gën a kéemaane mooy bi nga xamante ne mooy sangatu alal bi alal ñam dara ñam mi nga xamante ne maa ngi defee fii sama foore bi. si àll bi si àll bi. samp li may samp ci taatu garab yi nga ñëw ma sangal la fa. ala kulli aalin du ma ñaanal kuy foo du ma ñaanal kuy përëfut du ma ñaanal xamante ne du ma ñaana kuy foo dama ne la du ma ñaanal kuy foo ndax sangat bi dafa doy waar si guy maa ngi koy defee si garab gi sama foore bi fii gannaaw boobu sangoo pare. Mm-hmm. alal wërsëg da lay yomb loolu laal mu am barke. Mm-hmm. du nekkee da jaay du nekkee da ngay da ngay fubal sax dama lay samp foofu samp laay def foofu samp nit samp. ay mbiram dox. ma wax la du ma ñaanal kuy pari foot. Uh-huh. du ma ñaanal kuy foo. du ma ñaanal ku nekk si naar bi. du ma ñaanal kuy nelaw ndax mbër mi ngay ñaanal sax pour daan du bàkku du la du du entraînement wu du daan. Mhm. waaye lépp looy liggéey laax liggéey boo mën a doon. Mhm. bu dul sàcc du ma la ñaan nga doon milliardaire. te ci sa cangatu cangatu sangat boobu may def foofu la. tey yóbbu naa fa lu man ñetti nit ñoo xam ne sangu nañ. di fa samp ndax ndax ndax at mu bees maa ngi ñëw ndax ñun ñun nag ay mu mm-hmm. jeex rek damay si samp nit ñoo xamante ne du at bi ñëw ma taal seen bar ba bagaas mu ànd ak moom waaw léegi samp place nag samp place gis naa benn waaye buy wax ne ay nag jën jën lay sampee place jën léegi da nga koo weddi yow weddu ma ko waaye wérut léegi fan nga teg ni wérul xam-xam ban xam-xam moom amul xam-xam li muy def du wérut nañ ko tëb da jàll xam nga lu ñu lañu sampee place ah. bopp golo xam nga la may golo golo du jaaroon fi ñëpp daw topp ko ñëpp kay topp mm-hmm. yow mi loor mi kono mi kono di nga daw xoole ko mm-hmm. ndax bayreem bayre golo moo gën a garaaw bayre yëpp yëpp yëpp borom xam bu am xam-xam jàng xam li ma wax mais bayre bukki yi ñuy dégg ak yooyu bayre bukki sax du garaawut bukki si àll lay nekk du nekk si biir kër golo fan lay ne golo mën na ko ayer si kër am na ñu nekk ci àll am na yu ñuy def sax si takk sax si oto yi. bukki du jaaroon fi ñëpp daw duñ ko duñ ko seetaan da ngay daw tëju golo na du fi jaaroon nga daw xooli ju ko ñeent bopp golo laay ut samp ko si palaas bi tëgg lu mooy tëgg. nu muy demee noonu noo koy defee. xam-xam duma wax aaya bi duma wax saar bi duma wax sóora duma ko wax. ndax defal lu ma ko sëriñ ndax bër dama dama wax benn affaire dafa am sëriñ bi fi ma sa ñëw dégg nga buy moom bu ma sa mhm. ñëw mu jàmbatal ma bopp bi metti na sama bopp bi day metti ma jël benn aay bind ko ak lu muy àndal ne ko lii de doo ko defee bopp bi sedd ma xëy dégg ko si internet bi mu ne moom képp ko boppam metti du la joxe saafara mu sedd wax na dëgg si man la ko jëlee loolu tax nangoo too joxe du ma joxe <laughs> ñeent bopp ko ji daal laa koy def uh-huh. taxaw si digg bi def lu may def génn dem sama yoon doo doon jaay cent mille di jaay cinq cent mille doo doon jaay cinq cent mille di nga jaay trois millions te di nga tukki Dubaay ak Chine di uti bagage di ñëw ndax bagage ndax client yi nañ daw. Hmm? te gauche ak droite. te yaa ko garanti. waaye man mi la ko defal kay du amut ñëwal ne ma li nga def amut te si Ndakaaru laa ak Gàmbi place yu bëri tey man sëñ Aliou Touré duñ maa ko samp sama loxo bii. Hmm. ba place yëpp tey mu ngi màjji màjji lu xale yi dox màjji màjji. te Cheikh Aliou tey sa daa tàng na de xaw ma nu mu demee noonu léegi nag ma bëgg nga ñëwal ma ci li nga xamante ne moom mooy jaaro bi. xaw ma jaaro yi. jaaro yi waaye jaaro bi la. Ah. jaaro yi bëri na. waaye jaaro bi mooy garaaw bi mooy mbir mi jaaro bii ma wax ma la wan. mooy bii muy jaaro bi nga xamante ne moo gën a kéemaane si jaaro. jëlal ma loolu mooy bii nii. du nekkee jaaro day jëriñ. jaaru Serigne Aliou Touré borom solution képp mooy jëriñ. Cheikh Aliou na xam nga lan moo tax man daal waxtaan bi xaw maa kii man man da jàpp ne yow fi mu toll nii nii nii man yeneen gars yi dañuy foo xaw ma nu mu demee. waaw kenn day foo. waaye dama ne nekkee jaaru day jëriñ laa ko day jëriñ. Mm-hmm. te ma takk si ñaar te xam njëriñ bi man njëriñam di wërsëg ak kaaraange te kenn du la lor su loxo doo ko takkee ma xam ko ñi ko jël di ko takk di am wërsëg di ma di ma woone ma sëriñ bi mbir yaa ngi Mhm. dama ne du nekkee jaaro am na jaaro bi laa wax ni moo gën a wér leer na du nekkee jaaro am na jaaro bi moo gën a wér waxuma nag gars yi nag seen jaar yi wérut waaye bii moo gën a wér mhm. dafa am qualité ak quantité ak quantité man qualité laay joxe léegi ñeneen ñi la ñuy joxe xaw ma la ñuy joxe sama yoon nekk si ñoom ku la ne joxe wuñ qualité xam jàllal si beneen <laughs> të të ci Aliou léegi ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy wàllum xëccoo place wala ku ñu liggéey ci palaasam. mbokk mi dafa am benn xale. Mhm. du ma waajuram déggee ne xam ne moom lay waxal. maamam bu waaju baax la ma ngi Casamance. Mhm. xale bi ndar lay jàngee ndar. waaw. ñu liggéey ko ba bàyyi jàng du bopp bi di metti mu feebar. Mhm. kere ba ma maama wooyee dama ne ko na ñëw ñetti rendez fu laa koy jox lu tàqali ko tu moom ma delloo la sa xaalis xale bi dellu na ndar di jàng mu ngay jàng fi mu toll billaahi wallaahi wa taala ñetti rendez-vous laa ko wax ne ko du nekkee tàqaluwut ak moom ma delloo la sa xaalis foo aw ak moom baatin liggéey bu ñu def ma dindi ko place bu ma bëgg samp wala kër gu ma bëgg a samp man man man nit ku ma bëgg samp dama lay samp place dama koy samp kër dama koy samp ndax kër dañ ko war a samp dëkk si kër te xooloo ko wóorul société dañ koy samp société yu bëri ngi tàkk lépp lu nit di def ci àdduna bëgg si réussite da koy samp nguur dañ koy xëccoo naa la fi waxoon ne la Bassirou Diomaye sol na daalam dem pale xam na la ko xamee baatin maa xool xam ne jàmbi réew mi mooy Bassirou Diomaye Faye ndax mooy Sonko ma def baatin def li ma xam jàng samay ñaan di tëju xalwa pour lan pour soppi am moo tax lu bëri xëccoo da nga koy mën ñu bëri si état bi ñu ngi ñu ngi si woon te ñu ngi am fitna te maa ngi leen laay biir ñu ne uti gàllaaj hmm? ndax gàllaaj dafa baax day fay coow day day aar nit ba fitna doo si dugg lañu ñu war a wax dafa bëri de torop torop te xaju fi léegi xam nga nu ñuy def léegi da nga may benn laaj bii nii rek ma tëjee ko pàcc bu njëkk bi bala maa dugg ci li nga xam te moom mooy wàllum actualité parce que fi mu toll nii comme ni nga ko waxee waxtu bi xoj nañu te xam naa ne bu ñu toppee laaj yi fii la fanaan bàyyi ñu tënk ko foofu noonu bu ñu ñëwee àggaliwaat ko léegi tënk bi li ma lay si biir may ma bala ngaa tënk rek do laaye biir bi mooy lan mooy lan mooy jigéen ñi nga xamante ne amuñu doom waaw maa leen di ñu wax ne leen uh-huh. jigéen ñi ne am naa secret boo xamante ne uh-huh. téere boo xamante ne jigéen bu ma ko jox doo ko takkee am doom waaw jël ëmb mhm. du nekkee bëgg nga doom bu góor ma jox la galag nga takku nga am doom góor da nga koy assuré góor wala jigéen du amagu trois mois ma assuré ko jox la galang bi lay jox nga takk ko am doom bu góor laax Saliou loolu nañ ci ñëwaat léegi man fi may tëjee mooy góor ñi wax nga ci jigéen ñi léegi ñëwal ma ci góor ñi parce que fi mu toll nii seen jàngoro fi mu toll nii defe naa ni moom moo gën a kii wàllum ngóor a xam nga ngóor dama ne waaw am benn waay bu ne yokk awra amut ma ne ko yaa mën a fen est-ce que am na na ñëw moom. mais lu wér la. du amee 3 centimètres ma def ko cinquante centimètres. allo 50 bari na. du amee 40 centimètres ma def ko 60 centimètres. boole ka rëy ak digg yi. dégg nga li mu wax. du la du la pax de nekkul day nekk bu ne la de bu rëy ak dijji laax rëy ba pare digg ba fu mu jaar fa mu jaaroon démb kii xam ne am na lu fi jaar lu bees. du nekkee loolu pare nag ma jox la saafara si nga xamante ne mooy bitel bu ndaw bi nga xamante ne moom moom jónni jónni la léegi léegi nga nga naan léegi léegi léegi say léegi léegi léegi lu muy def loolu boobu waaw sirop bi la naan léegi léegi léegi say léegi léegi léegi affaire bi dafa lappax mënta jug naan ko xool kadd lay def wow koŋ kadd laa kadd gën a dëgër du nekkee nag yow da ngaa am néew te deret la deret ma jox la laax bi ngay lekk laaxu sànqal bi boobu tam beneen doo ko lekkee da ngay wér boobu faj la am na ñoo xamante ne feebar la dama lay faj nga wér waaw kay mu ngi noonu mbokk téléspectateurs yi yéen a ngi jàkkaarloo ki ñuy wax Cheikh Aliou Touré di borom solution nekk fi nga xamante moom mooy daaru cubb terminus 80 képp ku ko soxla rek mën nga koo woo ci numéro boobu di affiché incha di nga ko jox léegi nag Cheikh Aliou foofu la ñuy tëjee li nga xamante ne moom mooy pàcc bu njëkk bi ñëw ci li nga xam ne mooy deuxième a ne mooy actualité ak tolluwaayu réew mi actualité fi mu toll nii li ñuy waxtaanee moom mooy wàllum gouvernement bees Jomaay Sonko ak fi nga xamante ni fi lañ teg réew mi fi nga xamante ne ci ak yi nga xam ne moom lañ nekk di posé ci doxalin yi mooy wàllum wàññi dundu geeg yooyu waaye teewul am na ñoo xam ne ñu ngi leen di sànni ay tract am na ñoo xamante ne fi mu toll nii ñu ngi leen di wax wax yoo xamante ne nii fi mu toll nii ñëpp ànduñu ak ñoom ci li ñuy liggéey lan nga gis ci mbir mi fi mu toll nii. man de en tant que bu bu gëm boppam ne citoyen la mm. en tant que patriote ndax patriote nekkul nga bokk. Euh, ab nu mu tuddati. Pastef Pastef. patriote mooy nga nekk Sénégal gëm Sénégal. nekk si li nga war a nekk te sax si. man gëm naa ne ñaar ñii li tax ñu jox leen suñu carte yi rëccu guñ ko te gisuguma ñu rëccu ko. Hmm. muy président Bassirou Diomaye fay ak le premier ministre Ousmane Sonko. da ngaa gis na ñu ngi doxal. bu baax sa kër sax dooy yëlabaat sa kër gi. Hmm. dina jël temps amaguñ 4 mois amaguñ 5 mois. amaguñ un an te lu gën a garaaw man maa taal sama oto démb génn fii si Massak Mbaaw si osan bi fu mu nekkoon. ñu ñu daaneel miir bi te miir bi dafa moon ba baare tali bi Kër Masaar gii ni mu meloon. te loolu lépp su gouvernement bees bi la nekk laam ñaareel ba ñu ngi man jënd naa mburu tey. loo jëndee. fanweer laa jëndee. mais borom boutique yi dañ ne wàññeekuñ dañ. ñaar fukk ak juróom lañ doon jaaye man fanweer laa jëndee saako ceeb non parfumé yi mille la doon jar vingt mille lañ lay wet léegi mille cinq cent. Hmm? ku soo juddi sëlëm doo set. doo set seen diggante ñoom ñaar jomaay Sonko. jàmm rek ma ne si laay sax di ñaan moom ndax kuy ñaan loo ñoom ñaar mooy bëggoo jàmm réew mi. dama laa wax ne Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ak Diomaye Diomaye day am ñaari mandat jox waaj. kon ñoom pareeguñ ci. déedéet. wala léegi sa waaj nag awutu baax loo gis ci moom xanaa fas yéenewul jëlaat réew mi. l'homme de parcelle. l'homme de parcelle. juróom-ñaari voix. l'homme de parcelle sa ni ngay wax. juróom-ñaari voix kooku fu mu jëm. yow gisoo ko mu man ka ñaanal nag. Hmm. man ka ñaanal ndax tamit lu ko dal dafa metti hmm. dama kaa waxoon gëmuñu ko man leen jaay nañ ko. bay seddoo njëgam. Hmm? waaw président Macky Sall jaay na Amadou Ba bay seddoo njëgam da kaa tayale dem ba ko fi moo tax ëllëgam lu mu war a góorgóorlu la. Hmm. pour ñu xam ko sax pour turam sax jugaat ma pour mu doon président de. Hmm. pour sax nit ñu xam ko. ñu mu jaar fi ñu ne ah, Amadou Ba jaar ne loolu lu mu war a liggéey la si baat léegi dégg maa ngi dégg président Bougane Gueye daal di. waaw li mu wax. Mhm. Mhm. man du ma diingat kenn. du ma kenn laax. Mhm. waaye am na droit wax li mu wax waaye tamit am nañ droit ñun wax li ñu wax am presse Sénégal di nga fay lémp <laughs> loolu am eh, état am na droit wax ko. keneen keneen am na duraa wax ne moom dina fay moom dina fay du fay nañ dem xool ci këyit fay na wala fayut. Hmm? fay na loolu amul problème loolu débat tollatuñ si réewu débat réewu jëf lañ toll. liggéey liggéey ni ko suñu président waxe jub. jubbanti moo fi amaan ah. ñu doon jaay terrain jaamu sax di ko lekk jamono ji ñëpp a ngi tiit. kenn nelawatu nelawatuñ ku lekk allu jaabu di nga ko ñi fi nekkoon ci nguur ki nag. waaw dama ne maa ngi leen laay biir. Uh-huh. nguuru Sénégal gi fi nekkoon tey. lépp ministre ba si député ba si sénateur nañ jug seen bopp. loolu leen gisal. Ah? fitna. fitna gu mel na gu tar sax. fitna kay bawu dara sëñ bi yow tamit. daa ñoo ci gis ñu dugg kaso bët dina bëri. du benn du ñaar. <laughs> loolu leen di diggal ñu uti gàllaaj gàllaaj mën na lu nekk sëñ yori milliard yéene woo sëriñ cinq cent millions te yori milliard sa bopp moom la gënal du bañ naa waxkat bee kaw sama bopp ma la gënal du bañ naa la acca Cheikh Aliou léegi nag dañuy tëjee fi nga xamante ne mooy làmb ji rek làmb ji moom defe naa ni gis nga ni fan yi arène bi yëngu na combat yu bari taxaw na ñu si bari war nañoo sëgg ci semaine yi nii ñi nga xam ne ci lañ jëm lu ci mel ni Gris Bordeaux ak Ama Baldé ak yeneen combat yu mag yi nga xamante ne am na yëpp Modou Lo Siteu ak yooyu loo ci gis wala loo ci mën a wax. li ma si gis gisuma si dara. Hmm. aw ma sax jotu xool ko sax. ndax la <laughs> yow yow naan yàpp gi ma yàpp nag dafa ëpp lu tax. man ñàkk naa fayda guddi jot may toog di xool si noo tuddee sax ni ñu tudd sax. làmb ji ñuy bëri ñan la. Gris Bordeaux Ama Baldé luy sama yoon ci ñoom. ci réew mi lañ bokk. ah man dama seetaan làmb. ah loolu moom si yàlla xaw ma ci nga fay la million ma fay la million trois cent millions wala cinq cent millions. nga dem te sëriñ fay ko mu ñaanal la man ma ñàkk fayda ni sëriñ laa ba pare toog di naan damay di way daanu di way daanu. léegi bu la mbër seetsee nga ñaanal ko nag xanaa doo seetaan. assuré wu ma la sax daan laax. ndax bu ñuy wax Modou daan na ma ne ko assuré lu ma sax daan. te dama lay ñaanal ñaanal lu ma mbër xooluma si mbër waaye nit ñu baax lañ nag contre wu ma leen yal yàlla defal jàmm ndax samay xarit dañ see bëri lool waaye làmb yii moom nga may wax moom xooluma si ñaanuma si man daal lu may tëjee di la ko ñaan maa ngi gërëm sama mbokk bu ñuy wax ñaa xarim loo ndax lan xaw ma xaw ma ko tukki na ànd ak Wally Seck le président Bassirou Diomaye Faye dem sa réew ma mu jël li jitteem dem sinab ko wane ko jërëjëf. mais gars yi ñu ko ciy ci loolu. ñi ko ciy critiqué lu ñu war a wax. moom moom moom moom du guinéen moom du malien moom sénégalais la. Mhm. te soudanais la te def am na njëriñ. dañ nekk toll si jamonoy whatsapp tip Instagram. loolu mooy gën a tasaare affaire yi te foofu lañ toll kon ku ko mën a siiwal di ko def te sunu président Sénégal la moo ñu ilif tey jii tey du ko neexoon du ma fanaan sama kër gi du ko neexoon mu def ma garde à vue mu Bassirou Diomaye Faye kon du ñu ko nit ñi ma demee dañu ko siiwaloon mooy ñaa xarañ loo jërëjëf. jërëjëf Cheikh Rew Touré kàddu gu mu gi ak looy tàggatoo. kàddu ko mujj gi du dara lu may sant gërëm jugee nañ si at mu baax at mu naataange ñu ngi si fin bi. di dem si tam xarit yal na yàlla indi xéewal yal na yàlla tamit yàggal fi sunu sëriñ si di mettre lu tamit lu xew Medina Gunaas man du ma wax benn camp moo tooñ diw nangam wala diw nangam ay julli lañ daal ay julli lañ ñun sunu biir war nañoo moytu leneen lu du ay xiiroo wala ŋaayoo nekk julli ba pare tënkuwaay si tarixa tiijaan bokkaat benn jëmuwaay war na nañoo séntu si leneen lu may ay ay sànnante xeer du nekkee safaan la ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jeexal. salaamaaleykum wa rahmatulah